بذكر يوم الفطر قبل قبله الى الصلاه ma la jëloon ci Imaamu Maalik ne moom de xam-xam yi digle woon nag bisu koor yi na nga fay lépp bala ngaa dem ci julli kaay ba wa alayhi alayhi wa lidan muddahi ma'id wa ala rasul radiyallahu ta'ala anhu kana alayhi salatu wa salam la yahdu li yawm al-fitr hatta yaqula tabarat rawahu Bukhari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Bukhari nee na mos na fay ci julli kaay koor jolli kuugaamo ɗoɗan lekka ɗoɗan laam kono nak ɓey bisbulo ko ɗaɗana lek ko ɗaɗana laam wurɓe jogi helat ɓeji warate jomo han zone won walla jogoɗa ko jogen mo fitturu sakatul fitri ولم زكاة الفطر معلقة غير سبع والعرض لا يرضى الصوم الصوم مؤلفة غير سباق أو مؤلفة بين السماوات والأرض لا يفقه إلا في زكاة الفطر من مال جزء leetar defar ba mu baax nga wara bu sotee ba teg mu aaree jëm ñi nangu la ko nga bàccaa de teembar ba kon teembar ba mooy sàkkaate ci kër bi sàkkaate bi tamit boo ko ci defee dana dem yàlla nangu la sa koor yàlla na ko yàlla nangu ci daara ji yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon maanaam aadam passé la sax waaye ñu sax fàttalante ci tuuti rek mooy bu taw bi nga xam yàlla nangu sa koor ki nga xam ne dafa xaw a am tardement ba amutoon nga jox ko ko moomul mu amul mu génne génne ko ak ki nga xam ne dafa tukki doonte dafa am njaboot ci yónnee mandat bi wala mu dee ni yéene seetlu na seetlu na seetlu ravitaillement bu ko defee bu xalaatee ne man de dama ma fàtte duñ ma ko génneel fa mu nekk mën na ko faa génne waaye bu fa xalaatee ne man fa ma nekk am nañ farlu li ma leen joxe départ bi dana ci génne sama muuru koor ak sama njaboot nga ca kër ga soxlawul mu génne ko loolu mooy zakatul fitri kan lañ koy jox ak nu muy toll zaaw lay doon a zaaw luñ koy nattale arbaha amdaad arbaha amdaad mooy bi muddi nabi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy tudde muddu muddu mooy lu fees sa ñaari loxo yonente bi alayhi salaatu wa salaam ba mu tëbay loxoom bi tëddiya laa maqbuudatayn wala mabsuutatayn tàllanu ko ba mu ëpp banku ko ba mu ëpp duy ko ba mu fees ca la mu doon dunde ca weeru koor ga moo xam njaxnaar moo xam pepp la moo xam moo xam ceeb la moo xam moo xam moo xam yàpp la moo xam soow la nga duy ba mu fees génne ñeenti yoon mooy saa saa boobu nag bopp bu nekk moom génneel ci kër ci nga xam ne dafa leen a war loon dund sa doom yu ndaw yi sa màggat yi amatul dara sa soxna yi ak mbindaan mi nga xam ne nekk na ci kër gi ci nga yoral ko léppam

الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام يا داود خل بني إسرائيل من ترك صلاة واحد لقيني يوم القيام أنا خبار لأن نعم، داود لأنك وحي نقول يا داود وخل جير بنا يكم الجير بني إسرائيل نعم، لأن كتب أي جلد يلا نينا نعم، بعد جون من يوم القيام دم النار رمي يلا نقلك يكتب يلا نشي يلا مصر لولو وخل جير بني آدم yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man yaqi llahu wa huwa mudihu li salaat lam yahbahu llahu bi shay'in min asarih nee na ku bàyyi julli ku bàyyi yelima sallallahu alayhi wa sallam ni julli leen julli leen ku bàyyi julli doy yàlla nee na la ngay def ci xoolatu ci dara c'est bon nga aj junni yoon c'est bon ngay xëy di déplacé wàlla c'est bon ngay joxe ay jàkka c'est bon ngay joxe ay juma leen julli leen c'est bon ngay dundal faqara ak masakin te doo julli nee na la nga def lépp yàlla bëgg ci dara xoolu ci dara leen julli naan julli ku bàyyi julli de nee na bariha min addiini sallallahu alayhi wa sallam man taraka salat amdan barika baraha min addiini yàlla fi yàlla musal ku bàyyi julli ca tey ko déggee na nga ci diine Muhammad yaa ca bokkal sa bopp waaye yow bokkatoo wa man zalli faqad kaffara képp ku bañ a julli yéefar nga wala jëf nga jëf yi yéefar wala iyaasu billahi ca lawal tukusel laxdar yi nee na ku bañ bañ a julli def nga jëf yi yéefar yéefar mooy bañ a julli waalamu anna salaatal iid waajibatun wujubu sulla ala kulli man bi jumaati yumar ila an yakuna haadi al bayt allahi al araam nee na julli iid gii nag julli goo xam ne dafa waar waar ak sunna yonent bi digal ñu ko sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne nekkoo ca aj ga na nga ko fexe di ko jooxe nii ñu ko def ci tellet def ko ci مانتاج با نيو غاركي لوكو يالنا يالنا نانغو يب بجاي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نيو نيان وآمنا بفضلك ولا آمنا بهذلك وآتي جماعتنا هزمي المؤمنين هداية وتوفيقه يا أكرم الأكرمين دا آسل البلد آمنا مطمئنة تجات رزقها رحدا من كل مكار وقنا قيد النفس والهوى والشيطان واجعل بلد دار العدل والإسلام وغير بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام ونمد عليك ربنا وقف أمال متغزلين بجاه نبينا وأصحابه وآله أن تعامل حالنا إلى أحسن الحال وأن تفارج ما نصل بنا من الأحوال واغفر لنا ولوالدينا ولوالديه ولأسياخنا ولأسياخي ولأحبابنا ولأحبائي ولمن ينصر إليهم دينا وتينا من المسلمين آمين يا رب العالمين ولمن أصر إلينا ولمن إلي أزاد ولجميع المسلمين والمسلمين لا تلحي أمين ولا مؤتي إلا كمجيب الدحوات ومخيل الرواد وهب لنا حرة من أزواجنا وذريتنا وحمل روعتنا واستر حوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك أستاذ نعم الإبراهيم بسم الله الرحمن